sëriñ Abdou Lahad Habibou ak ci turu soxna Bintu Mbacke Habibou kàddu yoo xam ne ñi ngi tàmbali ci dalal mbooleem ñi fi teew ñëpp te liggéeyu sëriñ Tuubaa bu am solo bii dajale leen fi waaye di tàmbalee cant gi ci kilifa yu baax yi fi toog te mooy kilifa yi nga xam ne ku xam Tuubaa ci kanam rek xàmmee nga seen kar seen xar kanam ci kanamu liggéey bi mu mel ne jamono bu jot yàlla ak ñuy dimbali duñu suturaal ci liggéey bi ndax ba muy tàmbalikat kat dafa mel ne ci doye di la tàmbalee ci ak suufe ci sax lu xaw a nuru ñàkk fayda la tàmbalee nga xam ne ku xaw a yëg sa bopp tuuti sax tey kilifa mën nga ne ah lii de tay naa ci dugg mbirum gone rek la wala yàgg na fee am wala du dem fenn ndax ñoom ñii fi toog kàddu yooyu yépp dégg nañ ko ci mbooloo mi waaye terewut ñuy góor góorlu di boole leen neex ak leneen naqari lañ mën ak lañ mënut ba liggéey bi tey xam nañ ne képp ku yàlla dimbali amatoo sikk sàkk ci Touba Kanam képp ku yàlla dimbali itam xam nga ne li gën a yaakaaru ci loo xam ne mbooloo murid yi mën nañ cee jàpp ba liggéeyal Sëñ Touba dëkkat bii loola weesuwul Touba Kanam te loolu mooy jëm yi xaj na tudd tur yi dana dana guddal waxtaan wi waaye ñooy sunu kilifa yu baax yi toog ndax yaakaar naa ne kenn ku ne ci ñun bu weer deewee ñaar téeméer yi ngay génne di ko jox Serigne tubaa lam la fa bàyyil te taw fii xam tax nga am ko moo gën a tuuti ñaar téeméer koy jox nag sax gi mu ci sax nga xam ne weer wu jot ñu di ko joxe ñañ koy jox itam am ndimbalul mën a koo defal ña leen koy jox fañ ko war a def tax na mu ràññeeku ba mel ne alal ju baree baree bari bari la la ñuy jëlee ci nit ñi te kenn ku ne xam na ne ñi ci gën a jàmbaare ci ñi nga xam ne dañuy góor góorlu at mu jot euh, douze mille rek lañuy joxe ci liggéey bi waaye gis nañ booloo gi ak nangu koy joxe ak xam fañ koy def ndax li ñuy wax ne yoonu murit li mu baaxoo mooy laaj lu nit ñi man di leen ko defal fu ñu xam loolu ab soññee la ci liggéey bi loolu nag moom moom moo am ci liggéey bi ba tax na mu gaawe nii mu gaawee selle nii mu selle dal xel nii mu dal xel waaye loolu nag dañ ciy sant bu baax a baax a baax sunu mbokk soxna yii ndax kenn jiituwu leen ci liggéey bi ni ngeen ci jàmbaaree pësteef bi ngeen ci taxawee loolu royteef la woo xam ne góor ñi leen yilif sax ñu ngi leen ciy roy ndax li nekkoon aaday jigéen ñi mooy séq ay mbootaay ay ndeyaleeg ay tontine loolu lépp bi liggéeyub tubaa ci kanam bi ñëwee jaay ngeen sëñ tubaa lépp fas yéene lu ngeen di dajaleeti day jëm sëñ Touba waaye leneen du leen boole lu dul sëñ Touba te loolu it def gi ngeen ko def kenn ku ci ne bu seetloo boppam dana xam ne sëñ tubaa wuutu na ko ci boppam loo xam ne mën na koo liggéeyal te sonnatu ci kuñ koy ndayale wala ay tontine wala ay nat ndax sëñ tubaa moom boo ko nekkalee la gën a néew ci sa bopp mu fii féete def fépp kon nag pësteef boobu ngeen ci ànd. ndax yaakaar naa ba ngeen di séq ay ndayaleek yi eh, ndawtal munoo leen wan a fexe ba góor góorgóorlu di dajale lu toll nii am at ngeen man cee dajale fanweeri million jox ko Sëñ Tuubaa loolu bu doon benn daayira bu ngeen bokk du ngeen ko man mukk bu doon ay ndayale du ngeen ko du ngeen ko man mukk waaye tawféex ji yàlla def ci Touba Ca Kanam tax na mu yomb ba kenn ku ne ci jàmbaari Touba Ca Kanam yi soxna Bintoog soxna Bintu saa rek soxna Mbaye Jung ñeneen demee yépp kenn ku ci ne bu at mi jeexee la muy dajale moom ñam àndal ci ay millions leneen lu ñu seqoon lu dul sëñ duñ ko man kon ndimbalu sëñ tubaa loolu mu leen defal ci boppam ba nga xam ne dana tax ngeen am tawféex yi man koo jëfal lu toll noonu nangeen xam ne tawféexam jooju du yam ca loolu waaye noonu la leen di wutee seen soxlay bopp kon nag na ngeen xam ne waa Touba ci kanam ñëpp ñu ngi leen di sant cant goo xam ne man mi ñu ko wax ma war leen koo jot jottali moom man leer na ma ne lott naa ci jot jottali leen cant gi leen waa Touba ci kanam ëmbal dale ko ci abi bu Mbàkke moom Cheikh Mahamadou Fadl mii di egsi ñu ñaan yàlla sunu borom yàggal ko fi lool te may ko ak wér te sàmmal ko liggéey bi ak mbooloo mi ay kàddoom ci ak cant yu jëm ci si yéen soxna yi wóor na ma ne man miñ koy wax lool lottu naa ci ndax ku xam seen takkuwaay seenu njàmbaar seenu góor góorgóorlu seenu ëpplante te nag ëpplante ak joŋante ak rawante dafay lu am solo nag mel na ne nag bu bu jëmee ci àdduna ab gàkk-gàkk la waaye bu jëmee ci yàlla lu ci waay def rekk war nga koo xet ndax fu soxna Bintu Mbàkke ne at mii liggéey naa fanweeri million dëgg-dëgg soxna Fan Mbay war na ko ne man tam doo ma ëppale dinaa fexe am loolu soxna Bindu Saar war na ko wax loolu ndax ci lu baax dong la ñuy ëppalantee wa fi dalika fal yatanaafasi l mutanafisun li mitli haasa fal yaamalil aamilun loolu moom alxuraan da koo santaane te dafa nawit koo xam ne ku la jiitu ci lu baax nga bëgg koo dab te yéen rawanteetu leen ci àdduna rawantu leen ci ay yére yu rafet rawantuwu leen ci ay takkaay rawante wu leen ci ay néeg yu rafet waaye ci sëñ tubaa ngeen rawante sëñ tubaa moomu ngeen rawantee nag dana leen dimbali ba kenn ku ci ne jiitu sa morom ci boppam ci sañ tubaa te du leen tee am dara ci àdduna ndax sëriñ bi danaan wax ne ku ndigal taxa naaje boo jógee danga nga kon nag ñu ngi leen di sant cant goo xam ne di leen gërëm gërëm loo xam ne di ñaan yàlla sëriñ tubaa sàmm leen sàmmal leen liggéey bii te kenn ku ci ne it lañ ci jot a def jàpp naa ne bu ñu nee soxna Bintu ak ñi mu àndal dajale nañ fanweeri million jox ko Touba ci kanam loolu lim bu baree bari la waaye lim boobu kenn ku ci ne boo xoolee la nga ci jël ci sa alal def ko te ba mu mat fanweeri million soo ko xoolee la nga dunde ci at ma dana mel ne ab sarax lay tolloo. soxna Bintoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax gàcce ngalaama di leen wax waa góor yàlla na sëñ Touba nangu jëf yépp kenn ku ci ne daaw ba lañ ci joxe ci sa alali bopp saw ñaq la nga ca wax ci say kàddu yu rafet lañ nga ci dox ci ay jéego lépp yàlla na ko yàlla ful defal la ko muy tawféexi sëñ Tuubaa joo xam ne dootoo taxaw moom fii ak fañ jëm te kenn ku ci ne la nga yéene te ñàkk a man tee nga def ko yàlla na la sëriñ Tuubaa wuutalal man goo xam ne kenn ku ci ne la nga yéene da ko man ci liggéey bii ndax ku nekk xam na ne jataay bii jataay yu yiw la kon mel na ne yéene nañoo boole ci woowu kon ñu ko ci sant bu baax liggéey bii nag liggéey la boo xam ne liggéey bu rëy la liggéey la bu am solo boo xam ne képp koo xam ne yaakaar nga ne war ngaa mën a jéem a delloo Sëriñ Tuubaa njukkal donte lott nga ci damay faral di wax ne kenn ku nekk boo wéetee danga xam ne sëriñ bi féete na la fu nekk kon la nga war a xalaat nag yow ana fan nga war a féete sëriñ bi ba ko ca gënal nag mooy nga jàng ba deñ ak réer fexe tegu ci yoonu siraatal mustaqima te bañ koo wàcc bu boobaa loo ko ca dollil rek am na mbégte ci yow dëkk bii di Touba ku nekk xam na ne xasida Matlabul bi mooy li ñu mën a tuddee projet de société bu Serigne Touba lim ci xalaatoon lépp ak lim ci bëggoon def na ko ci biir xasida boobu liggéey li jëm ci wàllu dëkk bi it ku nekk xam na ne itteeloon na ko ndax dafa fonkoon dëkk bi kon nag bu leen yàlla jagleele ngeen jiite liggéey bu rëy bii kooku ñëpp ci war a ndokkeel ñëpp a leen ci war a jàppale te ndax kenn ku nekk am nga ci wàll am nga ci ab cër kon sëriñ Habib ñi ngi sant bu baax ci bii suñu borom defee itam ñu bokk yow xam la bu baax itam xam sa pas-pas ci sëriñ bi ak sa taxawaay nga jiite mbooloo mu toll nii loolu gën naa dalal suñu xel bu baax a baax bu ñu wëlbatikoo itam gis ku mel ne soxna Bintu moom sëriñ Habib moom itam kenn ku nekk danga am xel mu dal sëkk ci ne lii ñi ci kanam ak bopp yi ñu ko àndal kenn koo ciy gis di am looy xebet ci moom wala loo ciy ñaaw jot amu kon loolu mënees naa yaakaar ne mënees na daal dalarum xel bu baax te lii firnde bi mooy dafa mel ne liggéey la koo xam ne dafay gën a firi li sëriñ bi bëggoon ci dëkk bi ndax bi ñu ko tàmbalee léegi yàggul waaye yaakaar naa ne ku nekk teg nga bët ci ay résultats yoo xam ne yu ñu teg bët la te doomu aadama yi man koo jariñoo ndax damay wax ne njàngale fi ne mi ci gën a gaaw walla muy kilifa bu ñu war a roy la ca gën a gaaw gën caa noppale mooy deel jëf ñuy gis loolu bu boobaa du jar sax coow lu bari ndax koo xam ne nee na darajati inda al ilahi tartafia wa inna nii bi ajri rabbi am tafia kon loolu lu ca waay yëngu rek day firi wax ja waaye fekk na mu am ba noppi ndax nee na rus naa yi ñaan yàlla loo xam ne yàlla mayu ko ko ba noppi kon lu muy wax nee na bu niroo ak ñaan ci diggam ak boroomam dafay tegginal ay kàddoom diggam ak yàlla waaye nee na amul lu mu cay xel yàlla kon ndegem ci biir ñaan bu nangu la ñuy dox kon loolu nañu xam ne kuréel bu rafet ci njort bu baax te ñu bàyyi xel ci nag ci ne sëriñ bi noonu yi nga xam ne ñoo ko toppoon di nasaraan bi tey lañu gën a takk seeni laxasaayu ndax bàyyi nañ fi seeni sët te léegi lañu ëpp ay moyens te buñ sañoon fa seeni maam yamoon ñoom it dana am fuñ tàmbalee waaye loolu lépp nag buñ leen bàyyee xel la ñuy man ci yàq dëgg sëriñ bi du yomb kon yàlla leen ci yàlla jàppale te ñu taxawu ci nun ñépp ba liggéey bi àgg fu ñu ko foogewul di barakat xaadim rasul yàlla bu ci seytaan amu yoon ñu ngi leen di baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah. xam ne ñu ngi ci jataay bi sëñ Diama Mbacke moom sëñ Modou Ndiaye mi ngi fi sëriñ Modou moom sëñ Habib mi ngi fi sëñ Abdou bi mi ngi fi. ak soxna yi itam njaboot suñu éwu bu jigéen gépp ñi nga ànd ak soxna Bintu kon ñoom ci seen kàddu laay wax tey nag dama ñaanoon sëñ Habibu ne ko dama bëggoon nga dimbali ma bu ma waxee ci kàddu waa kër sëñ Habibu jox la nga wax ci kàddu Touba ci kanam waaye mu gàntalu ko lool ne ma daal la daan am mooy am <laughs> du ma du ma wax bàyyee naa la ko ñaari kàddu yëpp yaa xam noo koy lijjantee waaye yaa koy wax mooy yan bu diis waaye noonu fas yéene cee def suñu kem kàttan kon ci turu njaboot suñu xëy bu laay jiital ci turu sëñ Basiru mi toog ak sëñ Seexuna ak sëñ Basiru moom suñu Habib mi nga xam ne ca ëttam la defee waxtaan wii mu mel ni moom it yittee tax ñàkk yitte ju ko dafa tax fekkiwu ko waaye amoon na yéene fekk ko waaye ni ma ko waxee nag rakkam yépp ñu ngi jotaay bi toog te bu ñu fi teewee teewal nañ ko fi njabootu suñu aw yi bu jigéen gépp it ñu ngi fi ñoom ñu moom liggéey bi kon mën na maa wax ne njabootu suñu aw yi gépp ñu ngi fi te noonu alhamdulilahi rabbil alamin nag suñu doomam daf noo defal tawfeex te moom yàlla doo ko defal tawfeex du googu wet ci góor bu jigéen nga ci yem fi kenn ne nekk man faa nekkaale ñëpp ndax ñëpp benn lañ yàlla dimbalee na ko ci njabootam suñ leen sant bu baax a baax ndax liggéey bi ñemeeloo na suñ nu ci ñemeeloo ko utoon duñ nekk nii nu ci nekkee kon loolu it ñi ngi koy seeral ñëpp xam ne ci seen ndigal ci lañ ci nekkee ci gunge gu ñu gunge ndax ñoom ñëpp dañ cee bokk am ci it ak ci pëstéef di ci joxe seen alal di ci soññee loolu moo tax ñu man ceene kon sëñ Habibou ñu ngi yëkkati nuyoom njaboot sëñ Habibou gépp di ko teg sa loxo yaa ngi yaa mbooleem mm, waa Touba ci kanam gépp di yëkkati kàddu yi cant yoo xam ne ñu ngi jóge ci soxna juntu jëm ci mbooleem mbokk yi mu àndal di liggéeyal Serigne Touba waaw jiital ci nag soxna yu tedd yu baax yi nga xam ne ñooy njabootu Serigne te ànd moom ci liggéey boobu yi mu wax ne day xolam sedd na guyu xelam dal na yaakaaram dollu dolliku na ci jataay bii ndax kilifa yu bari yoo xam ne teew nañ fi ànd ak bokki bi yi nga xam ne naka jekk ñoo ànd masa ànd moom liggéey bi ñoom ñëpp ñu ngi fi teew muy ne soxna Bintu wax ne ñu ngi yëkkati kàddu yi cant di ko jëmale ci soxna yu tedd yooyu mu tudd ak mbooleem soxna yu tedd yi fi teew di leen te ñoom ñëpp ñu maase ci ànd ak moom ci liggéey Touba ci kanam gi képp koo xam ne yaa ngi ñëw ci moom mu di la jox boole bi Touba kanam nga di ko yóbbu di ko jaay ak foo ko mën a jaay bi di ko delloosi ak foo mën ne ci àddina bi soxna Bintu nee na mi ngi lay sant cant goo xam ne fi mu toll ci ab xolam aw ñoom lott na ci tudd ndax liggéey bii muy liggéey Sëñ Tuubaa kat su ci amee lenn ndam yéen ñooñu ci ginnaawam yéen a tax te kenn ku nekk ci ñoom doyloo ngeen ko doyloo koo xam ne bu la jox bolok bi ba nga dellusiwaat amoo soxla ca la nga koy jox fu mu koy def ak nu mu koy def kenn ku nekk bu faboon almet teg ca it sa yoon nekku ca ngeen jaayanteeg moom jëmmi Sëñ Tuubaa tax ngeen ci sonn jëmmi sëñ Tuubaa moo tax bu ngeen ko xasee teg ci loxoom napp kon nag loolu li nee na doyloo ko yi ngeen ko doyloo seen digg sëñ Tuubaa lu mu xam la lu mu la looyu ci moom la kon nag mu dalee ne mënul lenn lu sant ak ñaan ni mu ko leewale ci bis bii li tax mu woote bis bii mooy loolu ndax ni mu ko waxee bisub daje bi mu daan def leewal bi moom da mel ne dañ ko bëgg a boole defee ko ci sëñ Tuubaa ci doo mën naan ni mu ko waxee waaye teewul nag moom ñi mu àndaloon ba at mi jeex mu dajale leen di leen sant di ko seeraloo tam kilifa yi seeraloo ko sëriñ Habib mi nga xam ne it mooy jëriñu liggéey bi di mu bëgg it mu ñaanal mbooloo bi ni mu ko waxee yàlla faj seen aajo saa yor ak ci baatin kon soxna si daal nee na xolam sedd na guyu xelam it dal na yaakaaram dëgër na ci liggéey bi nga xam ne engagé na ci digg di ci liggéey Sëriñ Tuubaa te seetaanu leen ko ci collecteur jàmbaar lañ lool waxtu la 15 bu ne boo fi ñëwee mbooloo mbaa ñooy jóge fa sori dagg seen i paas ñëw ngir yàlla jëm Sëriñ Tuubaa bu ñëwee yow si lañ jaayoon da jëlaat ay a yóbbuwaat bala 15 ñu defaat ko kon la 1500 yooyu ba ñu ko tàmbali woon bala 15 décembre atum 2019 di jeex kon soxna si war naa leer waa Touba te kanam ñi mu àndaloon jàmbaar yi seeral leen ak cant ci seen kanam te sàkkul leen ñaan itam ci kilifa yi kon lii moo waral jataay bi kon nag mbooleem koo xam ne mas ngaa ànd soxna Bintu liggéey bi soxna Bintu nee na ngi lay sant mu ngi lay gërëm mi ngi lay ñaanal a mas a sonn yàlla na ngeen ci daje ngërëmu Sëñ Touba nee na yéen ñëpp jàppe ak bis bi saa su ak see su leen ko yëgalee ni ngeen di bàyyee seen yitte yéen ñëpp ñëw teew ci mbooleem ko bokk ci Touba ci kanam mbooleem koo xam ne daal ñëw nga teew si ak foo mën a bàyyee ko soxna Bintu nee na gis na ko yëg na ko te xolam set na ci mi lay sant di la ñaanal jiigo yi ngeen ñëwee yi ngeen delloo yàlla na leen ko sëñ Touba nangul ci barke sëñ Touba wa kulli ma yaduru fi l ardi wa ma baynahuma yakun ya a sama